asalaamaaleykum wa rahmatullah famille euh, tëmb ndemeen silatu rahim yëpp noo dellu si waat rek euh, di leen nuyu ñu ngi leen di nuyu it fii ci tëmb euh, ci buntu kër sunu nijaay sëriñ alhaaji dem mu mel ne que moom itam bokk na ci ñi nga xam ne si doon nañ dalal gan ñi ñi fi fanaan si rawatina ñi nga xam ne si ne ñoo jógee Thiès muy délégation boobu sunu nijaay Eh, Serigne Abdou dem eh, jiite ko eh, Serigne Abdou Deme nag kenn du ko laajte ci tëmbu ndax moom itam kenn la ci njabootu sunu maam Fallou Deme seen kër itam mi ngi dendoon ak kër maam sur dem moom Serigne Abdou Deme boobu mi ngi fii ci kër sunu nijaay Serigne Alhaji Deme ñuy seeni nag délégation yi nga xam ne si ne ñoom ñooy war a ci yeneen régions yi di Eh, ndax eh, comme ni nga xam ne fii ne noonu lañ ko defoon daaw rek eh, noonu lañ koy waajale waat ren ñi nga xam ne si ne ñooy war a jóge Touba ak Daaru Marnaan tam xamal nañu sànq ne kaar yi ñu ngi bëgg a départ nit ñi tam ñu ngi bi nga xamante ne kaar yi dikk nañ ba taxaw ñu di leen ñaanal yàlla defal leen yoonu jàmm ñu jóg ci jàmm agsi ci jàmm waaye tam fekk si ci jàmm ñu jàllale li nga xam ne si mooy bis bi ci jàmm ak salaam te ñu ngi am ak rafet njort bu baax itam euh, ñu ngi seen itam sunu maam sëriñ alhaaji baraka moom itam mu jóge kër sunu maam Adama euh, di ñëw ngir war a euh, saafonte ak gan ñi nga xam ne si ñoom ñoo nekk fii ci kër sunu nijaay sëriñ alhaaji dem Euh, muy délégation bi jóge Thiès gis nañ ci sunu tante soxna Soda Dem ab Abdou Dem ak soxnaam ak i njabootam euh, ñëpp ñëw nañ mu doon koo xam ne si ne moom wax dëgg yàlla ku bëgg mbokk la waaye tam ku am Pastef waaye tam ku amug yëg euh, ndax ab réunion rek daf koy jàll di déplacé woo Thiès ba Touba Euh, ngir saafante ak famille bi loolu wax dëgg yàlla euh, dara gënu ko kawe xanaa liñ leen ci dolli rek mooy di leen fàttali ne rajo yooyu ngeen dégg muy régionaux euh, mooy yi nga xam ne moom la sunu nijaay Serigne Dame Soxna Guèye jëndoon muy kat përloor yoo xam ne si ne yu am doole la instant bi ñu wax yéen sax dañ ko wàññi nga xam ne mën nañu wax ne moom soxlaatul lenn luy bokk ci rajo loo xam ne si ne luñ ci dolli la xanaa bu weesoo table naissance boo xam ne si ne pour buñ bu bëggee yokk li nga xam ne si ne mooy micro yi euh, man ko ca yokk ak yeneen instruments yi am ci biir waxtaan bi euh, à part ça groupe loolu euh, rajo moom man na satisfaire lépp kon ñu ngi doole am contentement bu baax waaye itam di ko doole ñaane yàlla suñu borom duñ koo kàttanal te kàttanal bépp jullit rawatina ñi nga xam ne si ne ñu ngi ci tëmb ndemeen yëpp ka salik sunu nijaay Serigne Mouhamadou Mamoun Dem moom buñ ko tuddee rek di yóbbaale mboolem mm, suñu nijaay yi nga xam ne suñu ñoo boot ci moom euh, tañ di ay rakam mu jiitu leen euh, ñu jiital ko it euh, mu topp ci seen gannaaw wax dëgg yàlla cant ak ngërëm ñeel na leen liggéey bi itam ci lépp luñ ci wootee jàpp nañ ci seen kemt lay kàttan ci waxtu wu nekk ci saa su nekk waaye nag mu nekk jëf joo xam ne si ne ju àndul ak i kàddu la loolu mooy jëf ngir yàlla ci sabilillahi te loolu eh, ci la ñuy dox waaye lépp itam eh, ci loo xam ne si ne luy rafetal ak bokk la eh, kon ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp yàlla gën a barkeelal ànd bi waaye nag wala fi dañu wax ne tàgg bu nekk am na jàppal bii kii di sunu nijaay sëriñ Madum Dem moom itam mu nekk dakaar nga xam ne mën nañu wax ne askatu askanu tëmb ndemeen fii ne nii bokk na ci ñi gën a mag wala bu fekkante ne moom magul ci askan wi jàpp nañu moo ci gën a mag wala euh, euh, waaye lu mu ci man di doon daal ñi di ko dollee ñaane yàlla suñu borom gën a yokk ak fanam euh, ba yéene ji nga xam ne si ne am na ko ci yoon wi suñu borom àggaleel ko ko ndax wax dëgg yàlla ñi ngi rafetlu ay kàddoom di rafetlu ay conseil di rafetlu tam ay xalaatam waaye tam muy doon yoo xam ne si ne mi ngi koy sottante ak famille bi surtout man wax dëgg yàlla damay déggante moom ci lu bari loo xam ne si ne ay conseil la yoo xam ne si ne lu jëmale bi kanam yemul nag ci kàddu yooyu daf ko boole yëpp nag di jël aw ñaqam di ci def ci loo xam ne si ne lu àndut ak askan wi di ko ko laaj wala loo xam ne si ne lu àndut ak askan wi di ko jàmbat saa bu di di yëgee ne askan wi yëgee ne lenn rafet na ci rek wala lu ci jaadu la loolu moom dana ko daal di financer immédiat ba bokk na ci li nga xam ne fii mooy kaar yi war a indi e, mbooloo yi loolu moom moo ko financer e, ngir bëgg ñëpp ñëw tëmbu ngir bëgg ndaje mi gën a réussir loolu tam mm, ñu ko ci doole sant bu baax e, di leen fàttali it ne terrain yi nga xam ne fii ne nattu nañ ko Euh, képp koo xam ne si dikk nga fi itam boo fi laajee fuñ ci toll itam euh, danañ la ko won mais pour l'instant mënaguñu mën a wax kenn ni ko fii nga moomee wala fii li kii moomee ndax dañ ko borné ba pare mais numéro tuubuñ ko ba mën laa wax kenn ku nekk numéro bi nga moom foofu la liggéey bi tollaguñ pour le l'instant